asalaamaaleykum mbokk taalibe bi seen mbokkum taalibe seen mbokkum taalibe Mouride Kayre moo leen baaxee naaf bi nee na guddig juróomeel ga ku ca julli ñeenti rakka rakka bu ci ne nga jàng faatiha benn yoon alam nasara ñetti yoon xul huwallaahu ñetti yoon mel ne ne ku xaj makka junni yoon yoon junni yoon des na ko musal ci ak ñàkk des na dolli wërsëgam na ca bind ñaari malaaka yuy far ay ñawteefam di bind ay yiwam di ko yëkkatil ay daraja ba bis ba bis bay dellu si déwén te bu faatoo des na ko bindal tuyaa na ko bindal tuyaa bay ku dee ci des na ko jéggal bakkaaram yépp des na ko musal ci mettitu te am ngërëmul yàlla te bu faatoo des na ko ubbil ci bàmmeelam bunti àjjana mu di ca xeewu ba keroog bis penc njëriñ li bari na lool bari na sa yàlla na sëriñ Sohaybu Mbàkke yàlla yàlla nanu ko sunu borom fayal barke weer koor bi